bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xam ni noo bokk liggéey bi Cheikh Mouhamadou Bachir nga xam ne mooy yor baatu jottali gi ak sëñ sëñ Mouhamad Lo nga xam ne moom lañ dénkoon eh, eh, wattuk dëkk bi ñu ngi nii teew wax nag dafa war waaye ku sañoon booy wax wax ji am eh, wax bi daani wax waxu lislaam wax du ne noo ngi ci mosuñu cee noppi loolu lépp nag mooy nekkal sëriñ bi sëriñ bi moom boolewul ak dara boroomam ak yonent bi nga xam ni moo ko jox ndigal mu dem ci loolu ba bu yàlla kii la géel yonent bi sëñ bi léppam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 mi ngi fi la ca des nag la koy mottali mooy bëgg lu baax rekk te yàlla tax di jëf lu baax rekk te yàlla tax bañ lu bon rekk te yàlla tax daw lu bon rekk te yàlla tax loolu mi ngi fi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 wax na musta noppi ngir bëgg gindi nit ñi gindi nit seen boroom moom mën leen jëmale seen boroom bind na it ba loolu lu ñuy laajte nekku ci li ci des nag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 ne ci lu la neex ah jullit bu ko def yaag sa borooma taali bi Sëñ Tuubaa ko def yaag yaa sa borooma ndax sëriñ bi mos ta juyoo ak boroomam la boroomam bëgg rek la boroom digle rek moom la digle la boroom bëgg moom la digle la borom tere moom la tere la borom bëgg la borom bañ loolu leer nañ am ma yàqute nag lool mosu fee jóg yàqute mosu fee jóg te ki ko yàqu li ci ëpp li ci gën a bare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 bello, dëgg la ci lislaam la juddu ci ñooñu Sëriñ Tuubaa yi la boole woon boppam rawatina jox bi mu boppam jox jox bi mu jox jox boppam Sëriñ Saaliw Sëriñ kon waxoon naa ko njaboot gi muy sëñ Saliou ak xaadim sëñ wax ak ñoom dama leen ne sëñ Bàcce moom suñ yoon noppi nañ ci suñ yoon nekkul ci moom nan ko bàyyeeg suñ borom ak sëriñ bi waaye nun mbooloo mi nag li fi sëriñ bi rek nañ ci nekk loolu laa leen sant ne nekk ci loolu bi ñu amee dolli ko gën a jaaxle suñ digganteeg mbooloo mi ma ne leen dem leen loolu yi ma leen wax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 Eh, soxna sero sii fa fa ma jëkkee wax ak moom ca njaareem ca ga wax na ba àggal wax ci ne ñoom ci ndigal la ñuy wéy ma tontu ko dama ko tontu dama ko ne yaa ko ma ne ko ma ne am na loo xam soxna si wax léegi moom nee na ci ndigal ngeen li la ñuy ma ne ma ko nag ndigal ak tere nag ñoo ànd mosuñu duñu tàggoo foofa rek laa cee mën booba bi mu del see fii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 noonu nag yàlla doxee yàlla dox doxee doxee noonu nit ku jëm ci yàlla noonu lañ doxal. moo tax ñoom it dara loolu loolu ñoom dañoo ne ci xam nañ li ñu war a nekk li war a def xam nañ ko ñoom ñu ngi ci waxu leen dara waaw ah xam nangu nañ li yàlla dogal ah li war li war su suñ si war suñ digganteeg ndongoor bi xam nañ ko laaju na ko kenn Serigne Touba ñu ngi fi liggéeyam bi bépp mi ngi ci loxol colonial si te yàquñu dara ci lim lim nekkoon suñ borom ba ci si fii tey kon moom moomee di sëriñ bi ba mu jëm ci boromam jóg woo nit ñi bëgg leen gindi jëme seen borom bëgg leen woo ma jëme leen seen seen seen borom ca loolu rek la ma sa nekk waaye ci loxo yi loxo loxo tubaab yi lan lañ nekk la nekkoon kenn yàqulu ci sa morom ñee ña nga ci lañ lañ ba léegi moom it ba ci lem nekkoon ba léegi kon eh, daal soppi kuuf yi